al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam rahmaan rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin ñu fas yéene ñëw fàttalente ci biir weer wu tedd wii nga xamante ne suñ boroom euh, daf cee wàcce lu tedd ci guddi gu tedd ci weer wu tedd inna anzalnahu fi laylatil qadr inna anzalnahu fi laylatin mubaraka sahru ramadan allasi unzila fi alquran walbati ko at wàcce ko ci jëmm ju tedd alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab ci biir lool nag liñ bëgg waxtaane mooy alquran ndax alquran jullit war na ko yitti waaye rawatina ci weer wu tedd bi muy téere boo xamante ni suñ borom daf ko wàcce ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko tedd sa tedd nga ak saw nit waaye nag bu ëllëgee nañ leen ko laaj muy téere bu mat a jàpp téere boo xam yemul ci jullee ko woor kese teer la boo xamante ni lépp lu julit bi soxla woo ci kaw suuf mi ngi ci moo xam jaari jënd ay contrat waaye li ëpp solo jullit bi mooy lu ko gën a jigeel yàlla te alxuraan loolu lay defal julit bi ndax alxuraan lépp am miracle la kon jullit bu yore alxuraan war naa xam ni li mu yor mi ngi téye al miracle ci loxoom te miracle nag buñ koy wax ci alxuraan léppam miracle la ndax am na benn borom xam-xam bu wax euh, alfreshi benn jëmm def ko mos laaj moom alfreshi ku ku ku ku amoon xelante làkku arab la jëmm ji laaj ko ne ndax man nga maa wax ban parti ci alxuraan mooy miracle alfreshi tontu ko neko ko sa li ma laaj. nekkul lu xel nangu ndax li mi ngi mel ni nga ma jëmmi doomu aadama ban parti moo ci nit ban parti ji jëmmi doomu aadama moo ciy nit ndax doomu aadama moom lépp am nit la mu xamal ko ne que ma laaj alxuraan lépp miraakal la ba ci baat yi ngay gis aaya yi léeg-léeg nga gis araf boo xam dañ koy indi fii ci aaya bi ban indiwuñ ko fële wala aaya boo xam day mel ni dafay niru lu ñu répété wu loolu lépp la boo dikkee suñ borom am na fi mu bi ko bi yonent bi sa bi suñ borom waxee ne ko wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaloon foofu yonent bi alayhi salaatu dafa mel ni mujj tontu laaj bi ndax nee na ko waxaala rasulu yaa rabbi inna xawmi ittaxadu hada alqurana mahjura yonent bi dafa wax suñu borom ne ko sama nit de alxuraan moom dañ koo gàddaay te bokk na ci miracle yi mu alxuraan yi mooy baat yi fi muy tege baat yooyu rek moo fa mën a tege mën ngaa gis baat bu xaw a jigéeg moom max wala bu niroog moom max na waaye boo ko fa tegoon firime moom am baat bi fi nekk moo koy gën a matale ndax Mahjoora yonti wax suñu borom ne ko sama nit dañoo gàddaay alxuraan waxu ko ne ko dañoo bàyyi alxuraan matruuka te gàddaay googu luñ mën a gis la am jullit da nga gis julit jullit boo xamante ni day julit ci ci ñaari wàll yëpp di wax ne jullit la waaye da koy gis yitteem yëpp bu xëy soo ba ngoon alxuraan bokku ca dundam gépp la muy xëy di ko jàng soo ba ngoon di ci dang-dangi wala di ci sonnal ak njabootam alxu du alxuraan njàngum adduna nekk loolu nag mooy gàddaay kon bu bu jëfandikoo woon matruka day mel day des waaye mahjura sama doom ji day def bac sama doom ji day def BFEM wala sama doom ji day def GCS si tey mënut jàng loolu mooy li yonti waxoon rek gàddaay alxuraan euh, dafa miraakalam dafa dafa dafa gën a mën a matal yéen miraakal yi jiitoon lépp ndax miraakalam dañ koy gis liñ ci gisagul liñ ci gisagul moo ko ëpp ndax suñu borom neen sa urikumu ayaati fala tastahbiloon bu leen yàkkamti dina leen woon samay kéemtaan te inna sami'na qur'aanan ajaban déglu gi nii rek miracle la te loolu yéeféer yi xam ñoo ko doon weddi saxal nañ ko dañ daan dàq nit ñi ñu bañ a gëm yonent bi waaye teewul bu dee musaan di naafi la dañu dégg di ko déglu ngir dégg ni neex gi mu neex bokk na ci ba tey lu mel ni ki mahjura jooju ni mu xam ne foofu mahjura rek moo fi war a lool a nekk loolu ba tey boo dikkee suñu borom fi muy waxee naan wala taqrabu zina innahu kaana fahisatan wa sabila foofu wala taqrabu rek moo fi war a mën nekk moo tax dañuy wax ne alxuraan baat yi muy jël di ko placé baat yooyu foofu mënees waaw jëfandikuwaat yenn baat yu moom mooy yoon wi jëm ci njaalo bu leen fa jaar sax yoon wa fa jëm bu fa jaar te foofu wala tasnu jëfandikoo wu ko naka noonu ba tey da ngay gis ni euh, lu mel ni am alquran am na fu mu waxee naan wala man sabara wa xafara inna dalika la min azmil umur ci suuratu shura ak foo xam ne dafa ne wasbir ala ma adabak inna dalika min azmil umur ci suuratu luqman foofu fee min asmil umur nga gis fee nga gis la min asmil umur laam gi nekkoon fee def ko xasaf lu am solo ñaari situation yi dañoo wute day digle ñu muñ waaye ñaari muñ yi ñuy xeet muñ dafa wute mooy kii xañ na dafa am ku muy jëflanteel mu def ko loo xamante ne metti na suñ borom ne ko muñal te ginnaaw bi nga muñee nga muñ goo ne dañ ànd ak jéggale bañ ca nekk di génn sa làmmiñ lu ñaaw wala leen mooy wala man sabara wa xabara na daalika la ménage min umur benn bi nag moom bi nga xamante ni maanaam amul lam mooy wasbir alaa maa ataabak inna daalika min azmil umuur boobu musiba moo tegu ci kaw nit ki suñ borom dafa xamal ni ko muñal kon léeg-léeg ay dem bay niroo benn ñu dagg ci benn araf waaye boo demee ba seetantal bokkuñ te suñ borom ba tey am na fu mu koy waxa fu mu koy waxate fo boobu la alxuraan am na foo xamante ne dafay wax naan wala taqtula awlaadakum min imlaaqin naxnu narsuqukum wa iyaahum ak wala taqtula di digal jullit bi ne ko bul rey doom ngir ak ñàkk maanaam ngir ñàkk foofu maanaam aw awlaadakum min imlaaqin nahnu narsuqukum wa iyyaahum mooy dinaa leen dinaa leen wërsëgale dinañu leen wërsëgale yéen ak seen njaboot kii dafa nekk ci ñàkk ñàkk gi ñàkk nag tax mu jàpp ni moom war naa mën a ay doom wala war naa mën a diminuer naan man duma am doom yu bari ngir sama ñàkk gi bu ma amee doom yu bari du ma leen am lu ma leen dundalee suñu borom ne ko bul def loolu man maa gàddu seen wërsëg kon kii dafa ñàkk bu dee bi nag wala taqtulu awlaadakum xashiyata imlaaqin nahnu narsuquhum wa iyaakum mooy ñoom ñun dañ leen wërsëgale ñoom ak yéen ci boppam ayib ñaareel bi kii ñàkkul waaye dafa ragal ñàkk kii dafa ragal ñàkk xañ na am na lu mu dundee waaye li muy ragal mooy ëllëg njaboot gi buñ baree boo moytuwul li war ci ñoom dund beeg bi demee noonu mën na koo bañ a moo tax mu bañ njaboot gi bari suñ borom xamal ko ni ko loolu man maa ko maa maa gàddu sa wërsëg seen wërsëg kon loolu bokk na ci miracle yi nga xamante ni euh, mooy moom la ñu wax saaru euh, maanaam reversal order reversal in order mooy loo xamante ni nekkul luñ luñ luñ luñ def benn tartib wala dañ ko mu nekk même même mu nekk euh, maanaam xam ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk déedéet bokkuñ maanaam kenn ku ci ne dafa am daraje ñàkk jum kii dafa ñàkk kii dafa ragal ñàkk kon alxuraan nekkul loo xamante ni léeg-léeg baamu lay nekk déedéet jullit bi nag loolu lépp bu koy liir daf ko war a mën a bàyyi xel euh, lu mel ni kit alxuraan li ci mën a jullit bi mën a jànge mooy jëlaalatul xaali tourné ni sual jàngee nañ ko ci alxuraan mooy situation bi léeg-léeg ni muy dina tax ba yow nga mën koo atte ci loolu ngay laaj loolu alxuraan jàngal nañu mooy lu mel ni Yuusufa ak sangam bi bi ko soxna si euh, tuumaale alxuraan lim ñu jàngal mooy situation bi atte nañ ko ci lu jëlu ñuy laaj mooy in kaana xamiisuhu xudda min xubulin fa sadaqat wa min alkaadibin wa in kaana xamiisuhu xudda min dubrin fa kadabat wa min dubur kon alxuraan nit ki bu koy jàng ni ko wóor maanaam li muy jàng miracle la moo xamante ni maanaam lépp miracle la te miracle nag li muy jëriñ mi mel ni ci tegu ci Europe otom tegu ci autoroute bi di daw am na yu koy indik ay seen yu koy indiqué ba àgg fa mu jëm miracle ba tey naka noonu la mooy jullit bi dafa bu ko jullit bi dee bàyyi xel da koy gën a jigale boroomam lu mel ni ki Seydina Ibrahim am na foo xam suñu borom dafa wax ak moom foofu boo xoolee ci ñaari aayu njëkk yi suñu borom dafa indi ñaari xoo yëpp def ko indi bu mujj fu mujjantal aaya bi mu bàyyi fi ñaari xoo yi fi waroon am suñu borom indiwu ko mooy def daf leen xafaf wala si huwa yuthimu nii wa yasqini wa ida maritu fa huwa yasfini si yummiti suma yuhyin maanaam euh, fii suñu borom dafa ne huwa loolu di di di insister di takiid di emphasize di xamal nit ki ne ko maanaam man maa lay jox lekk waaye ndax nit bu xiifee wala muy naan xelam du dem suñ borom ci ku koy jox ñam ci lay dem bu nako noonu bu teet xelam du dem suñu borom day docteur bu koy saafara lay jàpp ne moo koy saafara waaye nag suñu borom di di ko xamal foofu di ko feddali ni suñu borom ne ko moom la waaye am na foo xamante ni moom bu ci àggee xelam du dem ci kenn ku dul suñu borom mooy diggante dund ak faatu. moo tax foofu suñ borom wala si yumitu ni suma yoxi yéen indiwu fa xoo ji kon alxuraan nit ki bu koy jàng mën na cee seetantal lu baree bare euh, muy loo xamante ni lu bi mën a góorgóorloo la waaye lii dinañ ko gën a yaat dinañ ko continuer incha allah ci yeneen bind yi ñëw lu mel ni ki bokk na ci li ñu waxoon jëlaat xaal tuux ne an suxaal jooju Seydina Souleymane jëfandikoo woon na ko mooy lu mel ni ci ñaari jigéen ñi. indi doom benn xale ku makkee ku ndaw ki nañoo jur doom bi euh, bi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan ne indil leen ma paaka ma dag ko jox leen jigéen ju mag ji daal di nangu yonent yàlla Suleymaan jigéen ju ndaw ji wax ko ko jox ko moomoom doom ji yonent yàlla Suleymaan ne ndaw ji jël doom ji ndax doom ji yaa ko jur kii bu dag ko kon alxuraan léppam miracle la léppam maanaam lu jullit bi mën a jariñoo la afoo bil xuqoodi yooyu yëpp nañ ci egg si incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu